loolu li da ngeen a baax rek waaye xanaa sant yàlla rek te itam dénk ndaw yi rek ñuy ànd ko daal te xam ne adduna xëyut sotti te itam Sénégal damay wax ne dafa tuuti ñun ñëpp ay mbokk lañ jullit yeeg ñu di jullit ak murid yeeg tijaan yeeg xaadir yeeg laayeen yeeg ibaadu rahmaan yëpp ñoo bokk Sénégal te na ko Cheikh Abdoulaye Mbacké mi daan wax mu baax ma daan waxee ne ay nit bu ñu bokkee loo xam ne mënuñu koo séddoo mënuñu koo séddale kenn mënu ko jël bàyyi sa morom dañuy rafetal bokkin wa te loolu mooy réew mi loolu mooy islam bi loolu mooy bokk ci ndax ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal te kenn mënu ko jël bàyyi sa morom kon dañoo war rafetal nañu ko bokkee te it Sénégal damay wax dafa tuuti koo fi gis rek sa mbokk la mbaa muy sa mbokk mbokk wala muy sa xarit wala muy sa xaritu kon bu ko defee rek eh, lu ñu mën di lu di naqari ak ci plan bu mën a doon nañ ci boole ak dal nañ ci boole eh, jiital xel dañ ci boole xam ne lu si Abdou Lahad Mbacké waxoon rek ne eh, lu la romb xel wu neex xamal ne ba mu jógee yàggut wala fa mu jëm soriwut ndax ay xel ki moo ci dëkk <laughs> li ngeen di wax course de fond moom kenn mënu ci yàgg da ngay daanu mbaa waaw kon bu defee lu ñu mën di bëgg rek ak lu ñu mën di eh, eh, eh, wuutee te xam ne li ñuy li ñuy wax pensée unique moom na nit ñi moom fexe nekk benn bokk lenn lu ñuy wax ak lu ñuy ak lu ñuy def ak lu ñuy tere mais dañu am lu bokk nag loo xam mën ni ko séddoo conscience boobu nag bu ñu ko amee ku ne ñu bàyyi la ci la nga nekk ku ne ñu bàyyi la ci la nga gëm ku ne ñu bàyyi la ci na ngay doxee jàmm daal di am te naka jekk loolu fi ma sa am waaw ndax islam sax bu ngeen seetee looloo ci am ay am ay école am ay courant de pensée am ay rit kenn ku nekk ay nuy nuy firee alxuraan sallallahu alayhi wa sallam gën ñëpp njàngale ma nit ñëw ne na lu gën ci àdduna mu ne ko biral wàll day ni maanaam maanaam topp sa ñaari waajur keneen ñëw ne lu gën ci àdduna mu ne ko asalaatu eh, fi waqtiha julli ci waxtoom kenn ñëw ne ko lu gën ci ci mbiru àdduna mu ne ko étaamu taam donc nga xam ko ñi ñëw wuute kii dafa ñëw ne ko lu gën ci àdduna mu ne ko defal lu baax say waajur kii ñëw ne ko lu gën ci àdduna mu ne ko waxtu julli ci waxtoom kii ñëw ne ko lu gën ci àdduna mu ne ko joxe ñam waaw kon nga xam ne ko nit ñi dañuy dañuy wax ne waaw dañoo wuutee waaw waaw waaw dañuy wax ne téeméeri xar benn yett leen sàmm waaye téeméeri nit téeméer téeméeri yett leen di sàmm waaw <laughs> bu ko bu ci booleeg dal rek xam ne lu fi xew rek lu ko gënoon a garaaw xewoon na fi bu dee différence différence ci politique ak ci diine ji ak yëpp fi lañ ko fekk politique amoon na fi événement yoo xam ne mu gën a garaaw yi fi xew léegi amoon na fi ay incident yoo xam ne rey nañ ci ay nit lakkante ci ay kër porté nañ ci ay plainte ay kilifa xeex ci lu ne xew fi waaye dafa mujj sedd te mën nañ ci citer rek exemple Lamine Gueye ak Senghor Issoufio ak ak ak BDS lu ne xew na fi seen diggante lakk nañ ci ay kër rey nañ ci ay nit jàpp nañ ci ay nit lu ne xew na fi waaye dañoo mujj juboo dañoo mujj juboo sax ñoom ñaar fusionné seen ñaari parti créé UPS muy Union Progressiste Sénégalaise Senghor di président du de la République Sénégal Lamine Gueye di président président de l'Assemblée nationale te lu ko jiitu lu ne xew na fi kon nag itam bu fi xewee lu ne mën naa nekk waaw dafa jar tey dafa dal te dañuy wax ne politique dara e, dara saxu ci lu dul géographie am na ko wax loolu mais en politique dara saxu ci ñu gën a noonoo démb ak tey mën nañoo bokk taabal te te li ëpp ñu coow boo leen seetloo ñoo bokk école yu njàngi fa ñuy dajee di reer di voyage doo ko fekke kon dañ cee war a dal tey li ñu lakk ay yëf ak rey ak yàq def yëf ñi tax ñu koy def seen doom bokkuñ ci seen jarbaat bokkuñ ci kon ñu ñoo war a am conscience boo xam ne dañuy xam ne rek al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi loolu sallallahu alayhi wa sallam waxoon bu yàgg ne jullit mooy ki jullit yi mucc ci aw làmmiñam ak loxoom kon kenn warut yàqal kenn wala laa darara wala diraaran la su yonent bi wax bu loru bu lore waaw bu loru bu bu te Sénégal lu bari te tëye nekk làmmiñ yi wàññiku ko benn waay wax ci benn waay bu ñuy tooñ day toj waa Sénégal mu ne Sénégal coow li dafa bare bari ba dañoo waroon sax dem euh, drapeau bi ñu changé étoile bi daf ko làmmiñ <laughs> wax ju bari te wax ni mu mën a defee rek noonu la mën a yàqee waaw bu ko defee rek naar yi dañ daan léeb ne bu fekkee ne wax xaalis la noppi or la noppi or la bu ko defee rek ñu néewal wax ji te te xam ne li ñu bokk mënuñu koo séddoo mënuñu koo séddale te te ñi tax ñuy reyante jëruñu ko ndax réeréewuñ ñoom te it àdduna rek a tax ñi daan reyante ngir diine sax dañuy mujj juboo parce que école islamique yi nga xam ne dañu daan reyante ami clan ak yëf dañuy mujj toog juboo ñi di sunnit ñi di chiite ñi di jaafarir ñi di waaye teewul ñëpp ñu xam ne ñoo bokk diine ji kon bu ko defee suñu Sénégal gu tuuti gi eh, nekk te naka jekk exemple lañu mës a doon ci wàllu googu ci tolérance ci ubbeeku te suñu fàllu modèle la ci waaw amoon nañu wëlëre ci wàllu gu jëlee leen na jullit yi jëlee naa këri diine yi waaye ba ci église bi jàng bi sax amoon na ci wëlëre ba ci cardinal Thiandou maa ngi ko tudd ci kon am na lu mu seqoon ak moom la ba la catholique am na ñoo xam ne ay chrétien lañ te seqoon na ko ñoom ku demee Houphouët Boigny ak Omar Bongo boobu ñu ko tudd Albert Bernard Bongo te wut am na ñu seqoon ak moom kon kooku tolérance boobu mën nañu ko jàng ci moom te xam ne rek euh, nañ woyefal mbir mi te dalal xel yi te xam ne rek kenn ku nekk rek la yàlla bind si sa jë da nga ko jot te yàq baaxul waaw na nga fexe bu loru bu lor kenn rek waaw waaw te yàq baaxul yàq baaxul waaw waaw jërëjëf sant baax ci kàddu yi am solo yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci Cheikh Mamadou Lamine Bara ak Serigne Fallou uh, rawati nag tolluwaayu réew mi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah yeneen jotaay jërë ngeen jëf